mais combat bi. combat père su ma ci ñëwee lan moo ci avantage ki nga xamante ni mooy Ama Baldé parce que ñu ci bari ñoo ngi naan combat bi su déree du ko arrangé mais su gaawee mën na nekk avantage am lan moo ci avantage Ama Baldé. bon Ama Baldé avantage am comme loolu ñu wax rek parce que toog di bëri ay trente quarante minutes ak Modou Lo loolu ku ne xam na ni ay risque mën na cee nekk ay risque de blessure ak yu mel noonu parce que c'est un lutteur boo xam ni bëgg na xeex te am na stratégie ci xeex Balla Gaye doon na ni Modou Lo loo gaaw gaaw gaaw mu door lay percule mm-hmm. te bu mu ko waxee léegi changé wul da nga koy gis ci combat yu bëri Bombardier li muy garaaw garaaw graaw dafa dafa tëj bëtam ñoom Gris Bordeaux ñii ñëpp kenn ku si nekk loo gaaw gaaw gaaw mu blessé la Lac de Guiers la même chose alors kon euh, loolu ñu ci wax dëgg la Ama Baldé nag nekk na mbër moo xam ne moom du xaar kenn waaw moom soo xoolee kon Papa Sow ñoom dañuy bëgg di benn bennal moom du leen ko xaar ay ñoom Zos dañuy bëgg benn bennal moom du leen ci xaar waaw kon nag euh, ni ñi ñi nga xalaat ni Ama liir li li ko war actuellement mooy am condition physique bu mat mais est-ce que est-ce que mu doon def ak ñoom Papa Sow jaarale fa ñoom Zos est-ce que dina ko def Modou Lo est-ce que la ci ñoom Zos nekk na ci Modou mais xam nga xam nga euh, Ama tamit il faut ñu nangul ko ay qualité xam nga man mënu ma nangu koo xam ne dafay def ni ñuy gis nii ba pare ñu ko fay bàyyi di xool leneen ban combat Ama nga gis euh, bu yéemu xaar yëpp da ci am difficulté. day dem ba fi nga xam ne fa soxla soxlaa mais fekk day jeex. combat moom nees combat moom guy gi yooyu ay combat la xam ne su fekkoon ne PAM da teel a teel a mu jeex kon du yegg ci coono boobu yi nga xam ne xaaru ci kenn nag yooyu bu ci nekk gis nga ko ba ci ay ñoom tafaati nag ñoom ñëpp sax mayu leen fu ñu yekkee seen nàkk. Hmm? kon euh, foofu la ñuy xalaat Modou Lo moom euh, ñëpp xam nañu il est athlète am na condition. temps bu doon moom bëre bu yàgg la bëgg parce que ci biir bëre bu yàgg bi lu bari mën na ko cee def mën na la gaañ mën na mën na la toucher aussi euh, loolu moo tax moom du ci yàkkamti waaw yow mi ko bëgg a contrecarrer nag ah da ngay mel ni Balla Gaye rek du ma la may dara. waaw loolu waaw waaw loolu moom euh, xalaat na ne xëy na peut-être ku ko def mën nga ci am mën nga ci réussir. mais man tamit ñi ma gis nii benn benn ak moom ñëpp finalement ñoom ñooy mujjee ñàkk waaw waaw